ci biir loolu nga ñëw maanaam diggé yiñ fa def maanaam tey suñu defee autoroute àllo boobu ñu ngi koy yaakaar ci ñoom lu ñëpp di saluer la ci biir loolu ñu gis beneen polémique bu fa judd jëmale ko ci commission d'organisation bu Magal Touba ginnaaw bi nga xamante ni kii di Cheikhouna Mbacké dafa daal di bind comme niñ koy defee à la tradition comme ñoom niñ ko defee à la tradition président dem fa premier ministre dem fa yu ci bare sax ñoom ñoo doon ànd mais bi yoon ñu def ko séparément mais ginnaaw lettre boobu nga xam dañ ko jagleloon lii nga xamante ni présidence pour que ñu jëlal leen en charge ñenn ci ay gan yoo xamante ni waroon ñëw ci màggal bi ci benn hôtel bu nekk fii te état bi moom ko muy King Fahd Palace mhm. ci biir loolu kii nga xamante ni nekk présidence du Cheikh Omar Diagne mhm. nga xamante ni moom lañ dénk lii di moyens généraux mën nañ ko jàppee mooy daaj mhm. mu daal di leen tontu que loolu daal mënuñu ko def ndaxte dañu bëgg a réduire li nga xamante ni rationalisation des dépenses de l'état état dañuy wàññi dépense u état est ce que tey président lu mu diggee foofu est ce que ëppul alal ka tey li ñu mënoon jël fii comme ni nga ko waxee ci njëlbeen ki la dikk euh, ndékki joxu ko su la diggee añ bul ko fa xaar. Mhm. naka nga jàngatee polémique. Euh, euh, ak kàddu Cheikh Omar Diagne. mbir moomu moom mhm. nekk na loo xam ni actuellement ça défraie la chronique. Mhm. des quatre coins du pays. képp koo xam ni rek taalibe sëñ Tuubaa nga wala jullit nga rek sax. metti na la. parce que tamit loolu jàpp naa ni ñun daf ñuy jox raison. raison bi ñuy jox mooy maa ngi fàttaliku keroog ba ñu ne euh, Oumar Diagne nga xam ni c'est un euh, ennemi juré des tarixa ndax kenn waxalu ko ko moo ko waxal boppam un ennemi juré loolu ëppul moom moo ko waxal boppam mhm. moom moo wax ni euh, tarixa yi avenir u euh, réew mi mhm. dafa daf ci bokk tarixa yi disparaître waaw wax moo ko waxal boppam. waaw dégg nañ ko moom. wëlbatiku aussi euh, jël ay tuuma yu ñaaw yoo xam ni vraiment jàpp naa ni nag euh, nit ñi war nañu am fulla ak fayda boo xam ni danañu mën a def les communautés religieuses yi nga xam ne ñoom ñooy ŋànk euh, tarixa yi ndax accusation bi mu leen def bi mu ñu def. Mhm. graaw na am na gravité boo xam ni war nañu mën a def une plainte. Mhm. adressé ko au procureur de la République. Mhm.

su fekkee ni defuñu ko aussi. Mhm. jàpp naa ni man ci sama xelu citoyen sénégalais. Mhm. que c'est du devoir de du procureur de la république. parce que tamit réew mo xamni dañ fay def blanchiment d'argent, mhm. mu am ben piste bo xamni kenn ci réew mi génnee nako wax na ni mom ci ci ci lu ko leer ni lolu occasion la pour nga xamni ci lañuy ñuy blanchir lañuy ñuy la ñuy la raxas ni euh, le procureur de la république il doit s'autosaisir pour wo ko lacc ko yane firndé la am. parce que nit ki aussi réew aussi réew mu organisé waruñu ci mën a toog rek kenn ku leen ku mu neex rek nga yëkkati benn kàddu yu mel noonu. Mhm. di ko di ko di ko di ko di ko rotal. Mhm. loolu lu graaw la. d'accord donc man jàpp naa ni loolu la mais euh, au-delà de ça man li may wax rek li may dellu siwaat ci li may wax mooy euh, jàpp naa ni man ñun dafay con dafay confirmer li ñu xam ni moom la ñu doon wax fii. Mhm. ñëpp déggu Sénégalais yëpp dégg ko. parce que bañ ko noom bañ ko falee la ñu wax ni présidence de lañ fa indi. moy créer nañu ben niche bo xamné mhm. c'est pour recycler des salafistes. Mhm. loolu man sama kàddu la ñep xam na ko. la néna ni euh, kii fa mu jëm ak ñun parce que la yoré actuellement nek na lu stratégique lo xamné mhm. ñom en tant que salafiste amu ñu possibilité yi nga xamné mom la tarixa yi am. tarixa yi dañu am adiya parce que taram par exemple bo déggé yoonu murid dañ nan la Touba li Abdul Mouridine la woo bi xidmatil aw bi hub aw adiyati ñeneen aussi ñu war la ne la yoonu yàlla da nga ciy natt di ci jël sa ñàkk di ko ci def. nga dégg leen barke Dembo Ndiaye ñu toog États-Unis waxtaan nañ ko fii man ak yow. Mhm. nga xam ne booba jibi bi moom moo demoon ak ak ak Coro Mbacke. sa Cheikh Coro Mbacke. voilà sëñ Touba ñu ñëw toog ak waa états uni di leen wan ne leen. Euh, lii nga xam ne moom la taalibe yi di jël di ko def ay mallette di ko yóbbu di ko jox sëriñ yi. Mhm. yàq la. Mhm. dañu war a bàyyi état mu gérer. moom nga xam ne ku ci nekk dana xool màggal ku nekk. lan moo normal mu yëkkati jox la. gàmm bu nekk mu xool ku nekk la nga war a jot mu jox la ko. xam nga ni man ba mu mu jibee ñun toog nañu fii discuter ci. ma la loolu li ci kanam rabu li bët. ci kanam rabu wax nga ko fi. et tey aujourd'hui l'histoire me donne raison. sur cette par rapport à cette question. Mhm. parce que certainement que euh, euh, bi mu jotee lettre boobu. Mhm. ba tontu ci tontu boobu mu ci tontu tontu bu ñàkk teggit bu ñàkk xorma boobu mu ci teg mu ci mhm. tontu xam ni. il a il a dû pleurer de joie. mon mhm. mon Cheikh Omar Diagne. parce que am na li mu bëgg. Mhm. ndax haine viscérale bi nga xam ne am na ko ci tarixa yi. Mhm. Euh, maanaam euh, ni mu leen ciblé. ak ni mu jëlee euh, maanaam dangaram tek ci kaw di manam suñu tarixa yi. loolu tay mu am situation bu nga xam daf ci def triomphalisme parce que signé na mom tay yet àddina dox na ba mu jot këyit boo na taxaw. Madame euh, Mouridi yi soxla dara mun len li du fi amé ndax man ma yoré signature bi loolu nag loolu la et c'est nak responsabilité bi ñun duñ ko wax kenn duñ ko ko wax duñ ko ko parce que du mom lañu fal ci suñu la responsabilité entière pleine et entière incombe au président Bassirou Diomaye Faye parce que c'est le président Diomaye Faye qui a été élu par les Sénégalais, et qui doit être au service des Sénégalais xam nga dañuy wax sax ni euh, manam nit ñi ñu ngi wax naan au lieu que ñu wax tontu bi ñuy wax leetre bi man Serigne Bass li ma ko comprendre ci loolu mooy que ni Serigne Bass dégg nañ ko bi mu toogee ba fa Diomaye njëkkee teg tànkam président Diomaye la ka ni jëlal date bés ni ki tey bés boo déggee ñu ni la Serigne bi ñëw na ci yow wala soxla na ci yow dara mhm. xamal ni loolu doo mënta am. Serigne bi soxlaalul la dara soxlaalul kenn dara. Mhm. xëy na sëñ Bas dafa jàpp ni loolu xëy na soxlaal leen leen ba mu ñuy ba mu ñuy jànni. wala mu mhm. ñuy toroxal. Uh-huh. mais en réalité du ñun ñoo leen soxlaal parce que ñoom ay jaamu réew mi lañu ay nit la ñu nga xam ni Cheikh Oumar Diagne baayam moomul présidence de République moomul alalu Sénégal way juróom bu jigéen moomu ko président Diomaye noonu ak keneen ak keneen ak keneen. Mhm. réew mi ñun ñoo ko bokk ñu am il faut mu am ku jiite. Mhm. nit ñi dem ci ay jogante. ñu tànn kenn ni que yow yaay président de la république donc jaamu réew mi la ñu donc ñoom li ñu war a def mooy lépp loo xam ni soxla réew mi la dañ ci war a taxaw rawatina nag soxla su nga xam ni euh, ña ngi koy defal tey ñoo ëpp ci réew mi mm-hmm. nga xam ni fa ñu daje toll nañ ci juróomi million doomu aadama yu nga xam ne ñoom ñoo fa daje mm-hmm. ñu am ay gan yoo xam ni ganu Sénégal lañu ganu cheikhul xadim lañu waaye ganu Sénégal lañu. Mhm. ay borom xam-xam yoo nit ñu nga xam ni seen xel dafa màcc ci diine l'islam mhm. di ay sommité isla euh, religieuse islamique. Mhm. yu nga xam ni ci nombre bu réduit dañu war a ñëw ci réew mi fekkee waxtaan yi nga xam ne jongante yi nga xam ne ci wàllu waxtaan. danañ koy waxtaan ci diine ñuy ganu Sénégal yépp ñu ni la comme nañ ko doon defee euh, at yi weesu yépp ndax ki nga xam ne tey moom moo ko yore woon muy Serigne Cheikhouna à sa décharge. Serigne naa ñu ngi koy nuyu di ko ziare di ko ndokkeel. Mm-hmm. Euh, di ko di ko di ko masawu aussi. Mm-hmm. ñun taalibe murid yëpp ñu ngi koy masawu. Mm-hmm. parce que la mu def. il n'a fait que son devoir. d'accord sans arrière-pensée. parce que bu fekkoon dafa am arrière-pensée. kon du dem ci ñoom di leen di leen laaj dara yàq na yàpp nañ rek l'État c'est une continuité. la mu daan def il y a neuf ans dix te amul benn coow. parce que Serigne Bassirou li muy coordonné aussi. am na ci yu nga xam du ko sax yëg mhm. dañuy ñëw rek nekk dara am mu gis ni li ñu def rafet na mhm. mu gërëm leen ci li nga xam ne sant na leen ko ñu def ko mu mhm. rafet moom aussi Serigne Cheikhouna ndam ka daan defee démb ak bërki démb tànk yooyu la jëlaat encore la même procédure dem fa nga xam ne fa la war a dem demande ñu jox leen mettre à disposition benn suite boo xam ne ñeenti néeg rek lañ ca soxla ak peut-être ay véhicules yoo xam ne dana leen yóbbu d'habitude noonu lay demee mu bañal leen mu taxaw bañal leen ko mais bam ko bañalee bu fekkoon daf ko bañal te amul euh, maanaam euh, euh, manam defu ko ampliation au président de la république. Hmm. danañu mën a wax sax xaw ci génne sax le président de la république ne xeyna na yëgu ko. mais le président de la république est impliqué parce que il y a une ampliation. Hmm. bu nga xamné ci lettre bi wane nañ ni c'est amplié au président de la république. d'accord xëy na sax exprès lako def mom d'accord.